la muy euh, maanaam courant bi nga xam ne mën nañ ko jële ci naaj bi wala ci ngelaw bi euh, nan la ñuy fexee ba euh, loolu nga xam ne njëriñ la war a nekk pour pour population bi ñu mënti waxtaan ak ñoom ba nga xam ne danañ ñu mën a dimbali ba ñu mën a wasaare euh, voilà suñu gis-gis boobu ci population yi pour ñu mën a ñëw lëkkaloo ak ñun ñu mën leen a dimbale ba nga xam ne euh, képp ku bëgg a def courant boo xam ne day jóge ci naaj bi nga bëgg ko def ci sa kër ñu mën la dimbale ba nga xam ne da nga ko mën a def mu nekk sa njëriñ